spectateur bi dugg ci biir ay ci mi sant yàlla rek barke sant Tuubaa ak ko daal ne biitu rek waaw sant yàlla sama doom la Pawlish sama doom la sama xarit la sama doom la sama xarit la donc euh, damay damay sant yàlla rek toujours parce que Pawlish moom sama féete la waaw daf maa ba pare wan ne ñëpp ni moom laa féetewoo waaw wan ñëpp ni man la bëgg donc damay am tawfeex rek wax dëgg yàlla mais biisu nga nekk référence nekk koo xam ne ñëpp la bëgg euh, sooy dégage sa caractère mais mais secret boobu lan la. mooy secret bi nga yor nii rek nekk ci maag ñëpp ci ne nag wéetuma ci benn yoon. <laughs> bisu dañ la gis euh, maanaam ak beneen bisu euh, yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mu nekk sa maman tey ji lan nga nu mën wax maanaam sa ginnaaw. Euh, maanaam desi bi nii rek lan nga mën a wax sant yàlla yàlla borom suñu borom moo soxla bu soxlaa jaam ñëppay ñàkk dañuy gëm yàlla rek nekk ci li nga xamante ne moom la ñu war a nekk ba fekk ko ah parce que fii li ko yóbbu du baay bàyyi kenn donc euh, tey mi ngi nii encore yóbbuwaat na sama papa Père Gaston waaw ah, ku ne xam ne sama diggante ak moom tey ji sama liggéey bu excès bu fii daanaka cinquante pour cent yi Gaston Mbengue la donc euh, damay sant yàlla di ko delluwaat di ko ndax sama fi kooku ni ma mel si Pawlish rek noonu la mel ci man ah nga xam ne kenn du ma laal wax dëgg yàlla euh, lu ma neex neex na ko te képp koo xamante ne Bijou Ngoné ex na ba Sénégalais bi seetaan ne grace grâce à moom la. donc damay sant yàlla bu borom suñu borom bu baax a baax a baax a baax. bis waroon na wax na bu la kañ koy tontu 8 mars tey 8 mars wax nga te 8 mars. waaw waaw si diggante yi euh, sujet bi nga xamante ne moom mooy indi a chaque fois loolu la def tudd Pawlish Mbaye moo ñu indi mënut a ñàkk nga wax boo demee seet tamit di nga gis mais lu concerne Bijou Ngoné noonu day xaar ba mars. loolooy war ni maanaam farata ak ak baax mooy tax nga wax. kese. mais waxaat ma lool waxaat ma loolu bu ma nit bu ma nit xam naa dama lay tooñ lu ñu ma mais am na ko loolu tëral na ko. dama lay yëy. Mhm. loo koy defee. dama koy yëy. <laughs> nan xaar 8 mars kon Aïcha merci beaucoup mi ngi noonu nag Aïcha Aïcha euh, programme bi tubaarkàlla ngéntali xam nga ni bisu li ma may may ko kenn en exclusivité ne ma si saara man yow rek laa bëgg yaay sama doom kon bu ko defee dëgg la xew bi dina neex na nama nu tuddee doom ji euh, doom ji góor gi nag mu ko tuddee Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam Aïcha TV ça va